Mamadou Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau. Mamadou Niang nga nekk chargé de communication bu association nationale des accidentés du travail et leurs ayants droit euh, occasion wu euh, bés bu ñu jagleel handicapé 3 décembre bi lee ngeen lancé si ab cri de cœur lan moo waral cris de cœur boobule. jërëjëf madame ñuy wax ni 3 décembre mooy journée internationale des handicapés may rappelé les accidentés de travail qui sont au nombre de plus de huit mille suñu association rek ñoom si boppam ñoom ñëpp ay handicapé la ñu toog télé jàkkaarloog suñu télé ñu dégg directrice de la santé ñu génn nii danoo génnee vingt et milliards nos directrices de l'action sociale autant pour moi ne dañoo génn vingt et un milliards jox ko les te ñun gisuñu xaalis nii de près nii de loin du appareil du liggéey du projet du dara nekk lu mu choqué lu ñu lool ma yaakaar ni nag ñun Sénégal fu ñu toll nii toll nañ foo xamante ni yaakaar naa ne nit ñi dañoo amatul yërmande suñu nit ñi ndax nit ku doon xëy day wàcc. am cërëm yëpp xëy yàlla teg ko ndox mu handicapé pour toute la vie perte tànkam perte loxom ñii gisatuñu yaakaar naa ne war nañ am beneen yërmande si ñun mais relation bu nu am ak ñun mooy dañu war a di sarax dañu war di yërëm mais xalaatuñu benn yoon pour war ñu dimbali parce que tey dégg na tey journée trois le trois bi hmm. ñu ngi siy wax ni bu subaa dootoo si déggut si dañ koy rangé ba déwén ci encore ñu dogaa wax si affaire handicapé yi est-ce que loolu rafet na fekk ñun ay nit lañ te ñun ay julit lañ yàlla yaakaar naa ne doomu aadama aussi am na loo xamante ni waru koo mën a dundee waru koo mën a def loolu moom na nekk la loo xamante ni métti nañ trop te kenn jàppul gis ñu kenn xamuñu woon sax journée am na dajale nañ seen ñetti pa ñeenti paa fee parcelle nit ñi ay handicapé la te teguñu ko fenn. Euh, tey jii boo ñu doon wax euh, jafe-jafe wu accidenté yi euh, de travail fii ci Sénégal lan la jafe-jafe yi ngeen di jànkoonteel bu si njëkk mooy dañuy dàq suñuy liggéey bu la dàqul dañ lay mettre au frigo di la harceler di nga bàyyi bëkk dem am na ko ma woo Dakar la doon xëy dagg benn tànkam dafa dagg benn loxoom dafa bloqué otoom ne ko dama la yóbbu sànjara te moom Dakar la dëkk. Mhm. pour pousser ko rek pour mu bàyyi. donc noonu la ñuy def ñu bari dàq na leen jafe-jafe la ñu dund si biir entreprise te teguñu ko seen bopp doon doon xëy liggéey yàlla def teg ñu teg teg si encore jafe-jafe li ñu gën a am mooy en en charge dans les entreprises kenn duñu jël en charge. Mhm. caisse sociale xanaa à part que sa tànk war sa loxo di métti na pour loolu. fekkee sa leneen mooy metti loo xamante ni bokkul ak si accident bi kenn du ko jël en charge jël ñu en charge doom jël ñu en charge sa jabar jël ñu en charge kenn koo xamante ni mu ngi liggéey boo xamante ni da am da nga am accident travail. Uh, socialement nan ngeen koy dundee ak njaboot gi euh, xale yi uh, doon liggéey ba yàgg euh, liggéeyatoo naka la accidenté du travail di dundee socialement loolu. Euh, madame loo wax rek noo fokkoon nag ti weesu na ndax nit ki bu doon liggéey ba liggéeyatu te fii Sénégal boo liggéeyatu kenn du la jox seen dama naan le travail rend digne la personne daa ñu di la jox seen ndax liggéey mais imaginons liggéeyatoo te mënutoo liggéey ndax pour nga liggéey il faut am certificat d' aptitude te amul benn médecin bu la koy délivrer doo am certificat d' aptitude kenn du la embauché waat nan nga nar a chômer nan nga nar a toogee doo liggéey ba xëy faatu boo liggéeyu ku lay téye njaboot boo liggéeyu fooy lekkee boo liggéeyu booy feebaree ku lay faj donc nekk na loo xam dañ koy dund ak sunu njaboot mu metti trop ay handicapé yoo xamante léegi dañuy mujj dem di dañuy léegi mujj di yalwaan imagine nekk liggéey ba accident di dem di yalwaan boo yalwaan bi doo lekk nekk na loo xamante ni ñu ngi koy dund bu metti si biir te gisuñu gisuñu kenn fu ko jooyee. Euh, léegi Mamadou Niang uh, naka ngeen gisee yéen taxawaayu uh, caisse sécurité sociale. caisse de sécurité sociale comme ko waxee caisse de sécurité sociale dafa mais caisse de sécurité sociale dafa limité mu def yëpp def ko li mu bëgg defee mënu ko def ndax tey boo xoolee ñun caisse sociale gisuñu kenn. lu dul directeur accidenté moo nekk si kanam te dafa limité loolu am na loo xam mënu ko gis ñu directeur gis ñu PCA ko ñu conseil d'administration bokk ñu lenn te jooytu nañ ko ba sonn boo feebaree te tànk di metti fekk nga accident sa loxo sa loxo nga am problème loxo nga am boo demee kees du jël enchage charge du jël en charge sa doom kees du jël sa en charge sa jabar donc na nekk la loo xam ne dafa limité moo tax le président Sall wax na ko waxati ko dañu war refondre code de sécurité sociale tant que ko kees bi du am doole kees bi du mën dara suñu ndax potam la yor boo ñëwee mën nañu c'est la loi te loi bi c'est limité imaginez nit ki ni ko doon am trois cent mille wala quatre cent mille accidenté liggéeyatul dem kees sociale trois bu euh, euh, ko joxee trente mille la ko jox wala quarante mille par ñetti weer ndax boo waxee mu sa la loi euh, mhm. donc euh, est-ce que est-ce que yéen euh, li ñuy wax loi d'orientation sociale carte d'égalité des chances est-ce que daf leen coiffé bokk ngeen si wala bokkoo leen si si leen bokk parce que carte d'égalité des chances c'est pour les handicapés te ñu nous sommes tous des handicapés et puis nous des handicapés pour à ñu ñëw si njëkk a bokk mais ñun dañ na see benn ñu bari ñun xamul ne fan ngay jaar pour am benn ñaareel bi ces autorités yi ko gérer ñoom ils sont même pas venus vers pour nous dire que nii ngay def nii ngay def pour am carte d'égalité des chances loi d'orientation bi kenn bokk si ñun ci ñun ñu am carte d'égalité chance ak nu ñu toll yëpp mat ñu dix personnes te ñu ngi souffrir ak carte yooyu donc yaakaar naa ne il faut ñi ñi xam ni il faut que ces autorités xam ni bu fekkee dafa war a seet dafa war a jàppale dafa war a dimbali les handicapés yaakaar naa ne gënu gënu gaaw pour jàppale ces personnes vivant avec des handicaps jëlee ko si liggéey te ñoom ils se sont te yaakaar naa ne benn échantillon pour dimbali rek mooy échantillon bu gënoon gaaw mais doon ni tey am na rek nga jël te ñetti paa ñeenti paa dajale leen jox leen ku nekk paas ñu woo ay nit taxaw am na ñoo xamante duñ ay handicapé di taxaw ci télé bi wax ni def nañ bi yëkkati naan xaalis jox leen def ko dimbaluñ doon jàppalewuñ gis ñu kenn suñu ñun suñu secrétaire général si yëgul woon sax yëgul woon sax am na journée journée des actes des actes santé te loolu yëpp kenn secrétaire moo ñu si waroon jàppale mais dafa limité lu moom dafa limité. Mhm. Euh, beneen ponk bu am solo euh, Mamadou Niang euh, naka nga gisee problème santé yi am ak sécurité ci ci bërëbu liggéeykaay yi fii si Sénégal surtout. il faut le dire problème santé sécurité yi dañuy wàññeeku dans les entreprises par rapport ak prévention parce que kees am na direction de la prévention ñuy tax accident ñu ngi wàññeeku nànk-nànk mais n'empêche que aussi ngi am ba léegi wàññeeku nànk-nànk parce que il faut le dire accident warul am si entreprise entreprise zéro accident mooy yor fii rek ngay gis Sénégal nga naan am na ay deux mille trois mille accident di jubilé mais normalement waru ñoom accident mais wax dëgg yàlla dans les entreprises accidenté yi ñu ngi wàññi parce que direction de la prévention bi moo tax Euh, beneen ponk am est-ce que am ngeen plan d'action est-ce que dangeen ngeen di préparer euh, marche sitting wala benn euh, yëngu-yëngal par rapport ak seen situation pour président taxaw si. ñu ngi préparer benn marche national ci mois de décembre ñu ngi regroupé wu ñu ngi si waxtaan ñëpp xam ni dañuy préparer marche bu mag a mag marché boo xamante ni dina regrouper tous les accidentés tous les personnes vivant avec les handicaps. ñoo xamante ne sa accident euh, ñoo xamante ne sa handicap bi dañ ko juddaale ñu def beneen marché bu mag a mag a mag au mois de décembre ñu ngi regroupé wu teg si encore ñu ngi organiser wu pour devant les entreprises yoo xamante ne ñu ngi xoñoñal ñu ngi sonal ñu ngi fatt les accidentés de travail vivant avec des handicaps à vie ñu dénoncer leen pour nit ñi xam que ces personnes que ces entreprises nii la ñuy dundee nit ñi te comme noonu dundee nit ñu wax ni sénégalais yi nan boycotté ces produits te pour ñu ñu xam ni que ñoom ñu ngi ko seexal ay nit ay nit lañ loolu ñu ngi si prépa ñu ngi si liggéey bu baax a baax suñu ay plan d' action la sur le mois de décembre incha allah. Euh, waaw léegi dernière question Mamadou est-ce que am nga euh, benn appel booy euh, lancé ñi nga xamante ni dañoo bëgg a jiite réew mi ci jamono ji candidat yi. d'abord ñu ngi lancé un appel au président Macky Sall ni ko moom moo fi nekk ñun ne ñu ngi koy demandé yàgg na pour mu recevoir les accidentés pour mu recevoir les personnes vivant avec des handicaps ñu soxla nañ ko mu recevoir nu bëggoon nañ ko mu recevoir nu bu ko defee mu wax à vive voix suñu doléance bu ko defee ñu wax ko suñu mémorandum lii leen bëgg ak lii ak lii parce que moom kese mooy la seule autoritaire boo xamante ne fii moom lañ bëgg waxal pour mu dimbali ñu parce que fépp fu ñu jaar ce sera la même chose ay wax rek la ay wax rek la ñuy kii moo tax ñu bëggoon ñu dimbali nu moom mu jàppale ñu pour candidat bi di ñëw nag di wax tous les accents na ngeen téye seen carte seen carte dafa nekk carte goo xamante dafa am importance ni dafa am importance ci keneen parce que bu fekkee am lu tax mu am importance da nga war a xam ni seen carte boobu mën na leen jëriñ lu bare bare bare bare bare képp kuy programme boo leen gis bu leen doy bu candidat bi joxe joxe ko nag pour ces personnes vulnérables ngeen votel ko ku amul programme bu fiable bu ko votel bu ko faale ngeen teg ko fële ndax vous avez des handicaps moom ngeen nar a dundal seen àdduna bi yëpp te na ngeen xam ni boo defee handicapé mënutoo liggéey te ce sera bu fekkee il faut que ñu il faut ñu régler rek code bi defaraat code bi defaraat code de sécurité sociale code du travail bi pour nga mën a liggéey donc loolu ñoom nañ ci gën a bàyyi xel te ñooñu ñoom laa koy wax mais ces personnes vivant avec des handicaps. waaw euh, Mamadou Niang maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. jërëjëf madame moro yow tamit di la sant di la gërëm yow tout le temps da ngay jox ñun opportunité yi ñun les personnes vulnérables ñuy wax suñu cas di ñu wax suñu doléance te ñun la si sant di la gërëm di sant gërëm sa organe bi yëpp merci beaucoup jërëjëf. voilà Mamadou Niang may fàttali ni yow yaay chargé de communication bu association nationale des accidentés du travail et leurs ayants droit ñu gën ko xam ci ANATAT en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax.